leen mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam nañ ni sant bu baax nag ba tey ci taxawaay yi ñun ñi ko seq ñëpp kenn ku ne xam nañ ne ñu ngi ci kem kàttanam di ci di ci def wartiifam di gëm di gëm ak bi di góorgóorlu bu baax itam suñ suñ diggante gannaaw bu ñu jëfandikoo suñu diine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 ñu ci defee suñu kéem kàttan rek suñu borom daa nu gàttan ci loolu ba mu gën a woyof ci ñun nu gën koo mën gën ci gën caa yore suñu pëstéer gën caa rafetu suñu yéene gën caa suñuy jëf suñu kéem kàttan loolu rek moo nu fi bàyyi alhamdulilahi rabil alamin noo ngi sant ñëpp góorgóorlu ci loolu rek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 ak cant rek moo ci war a dolli ko ak xel mu dal ak soññ nag gën a soññ rek suñu bopp gën a nekk ci loolu rek sax ca dàkk suñu kem kàttan teel rek tax ñu ko def ak njukkaliku Sëriñ Tuubaa mu ngi leen koy liggéeyale